داري وثبته woon nañ leen fii démb yàlla nag mu am ci seen soxna soo xam ne dañ ko ci ramasale wàllu ci biir jigéen ñooñu nga xam ne ñoom lañ jàppoon fii euh, bi mu ñëwee mu mel ne ku àndul ak sagoom euh, mel ne kuy daanu daal xaw ñoo jaxal nag tuuti fexe ba dalal ko ci ni nga xam ne noonu lañuy ñuy dalalee nit ku yiw dalal xelam mu xam ne euh, dara du ko ci fekk lu dul jàmm ak salaam ak tawfiq neexal ko maslaak moom ba mu nangoo waxtaan waaye ci biir ci biir waxtaan wi ñu laaj ko nu mu tudd mu ne faatu saar la tudd ma nga dëkk Cubbeen ca Saloum waaye mu ngi nekkoon Ndakaaru dafa am baj tantam ju ko yar ju ko yor ndeyam ak baayam dañoo génn àdduna tante jooju nag daf koy sonal moo tax mu génn dem ñu ne ko léegi fexeel bañ jox ñu sa adresse tante jooju ñu waxtaan ak moom ngir nga mën a dellu mu nangu naa joxe numéro sax waaye numéro bi ministre jot kenn mu waxit ne tantam jooju moom xelam xalaatul dellu fa ñu laaj ko noo bëgg a def kon mu ne bëggul sax toog ci dëkk bi waaye nañ ko fexe ba mu dem ci ay bokkam ci cubbeen foofu nag yàlla dogal na amu fa benn numéro téléphone mu jaaxal ñu ba ci guddi bi ñuy wàcc ñu dénk ko sëñ Mbacke jam yi nga xam ne moo yore caabi jumaa ji mu yóbbu ko këram comme moom kër gu mag la yor te ay jigéen bari nañ fa man na faa nekk ci biir këram moom demee ñu toppatoo ko mu reer xëy ndekki sangu ba set ñëw ñu mu xëytee euh, féex la xëy lool ak mbégte euh, ñu ngi koy tooñ sax ne ko mbaa kër gi mu ne waaw kër moom neex na trop xanaa kon da nga da nga fi toog mu ne waaye damay toog waaye nag li ma gënal mooy ma dellu ma dem ca sama nijaay cub cub benn ci noonu xam nga ne daayira bi yaatu na ay membre yu bare ngi ci dëkk yu bari comme ni ñu def ba xam ba jot kokki def ko ba jot Jurbel def ko ba jot feneen investi noonu la ñuy def itam ba jot euh, ñu dëkk euh, Kër Madiabel ñooñu dañuy jokkale bañ am ko dëkk Cubeen euh, kooka nag bi ñu waxtaanee moom mu di ko gëstu ba xam ay waajuram la ne xam na ay waajuram waaye am na benn magam bu nekk Dakar nañ ko mag ja Mouhamed njaay la tudd ñu woo Mouhamed Ndiaye moomu waxtaan wax ak moom mu ne nañ ko yónnee photom ci par whatsapp ñu envoyé ko photo mu ne waaw kii day sama rakk la sun ñaari baay ñoo bokk ndey ak baay soxna oustaz Omar Sall la maa ngi fiy yebal léegi sama mel na mbokk mu ñëw foofu dël si ko comme na ne soxnas oustaz Omar Sall soxnas jàmbur bu fekkente ne def nga ba gis ko day rafet na nga woo ki nga xam ne moo ko yor informé ko ne ko sa soxna si nga xam ne dafa réeroon gis nañ ko fii xoolal ndax moom la wala du moom ndax it nit mën na la ne kii sama mbokk la wala nangam nangam waaye nag nga am ñaar ak ñett moo gën a leer ñoo xam ne kenn ñoom ñëpp dañuy bokk luñ wax te duñ yëgoo ndax mbirum nit la ñu door ñu woo commissaire informé ko daal di def nag ay pexe ngir xam numéro Omar Sall rek magam jooju moom xamul numéro Omar Sall ñu woo menn moo xam ne mi ngi fii ci dëkk bi di sunu mbokk ñu bokk ñu seq liggéey bi mën naa ko tudd sax ndax lu baax la def muy alaaj Ndiaye Cheikh Ndindi ne ko fexeel ma ba ci bokk yi nga xam ne ñoo nekk Dakar bañ am numéro Oustaz Omar Sall mu mu ne ma waaw léegi def ay jéego moom itam ngir jot ko hmm. ba jot ko hmm. xamal ko ne ko am na ko ñu for fii ci jumaa ji wax nañ ne soxnaam la waa daayira Muqaddamatul ma ci opération bi nga xam ne moom lañ doon def ngir setal penc mi ak jumaa ji ci lañ ko gisee jox ko sama numéro man mi ngir mu war maa woo yàlla dogal na sax lu jiitu mooy woo moom mu woo ma jox ma numéro bi man ma woo ko bu ma ko wooyee informé ko ne dañoo am ko ñu for moom nag nee na Faat Sarr la tudd dëkk Toubé nangam nangam mu ne waa ah, kon du moom ma ne ko ah te nga euh, tuuti rek yor nga téléphone ñu envoyé la kii ndax jot nañ magam ju tudd Mouhamed Ndiaye ndax dafa mel ni Ndiaye la sant ndax ki ñu jot mu ne ñoo bokk bàyyi Mouhamed Ndiaye la tudd mu ne ma waaw effectivement am naa numéro WhatsApp ci noonu ma envoyé ko photo bi fekk am na sama rakk ji ko photo woon ba yónnee woon ko Mouhamed Ndiaye moom jox envoyé ma photo bi man ma envoyé waat ko ko bi ma ko envoyé nag mu ne ma tigi kii ne ko léegi nag mu ne ma maa ngi yebal léegi ñu ñëw fekk eh, fu ngeen nekk ci jumaa ji mu ne ko waaye ñu ngi ci biir jumaa ji bu egsi rek bu laajtee daayira Moukhaddamatoul Khidma danañ ko dox daal di woowaat commissaire xamal ko ne ko jot nañu borom këram jot nañu itam magam ba danañ ñëw incha allah ñu ngi ñëw mu ne kon léegi suñu egsee su borom këram egsee parce que booba sax moom mag ji moom ki yebaloon ñëw na boobu moom jëlagul décision pour ñëw euh, ginnaaw bi nag commissaire ne kon suñu egsee nañ leen woo mën nañoo téye soxna si fii lépp rek bi ñu demee ba xam loolu informé waatuñ soxna ci nekku nag xamal nañ jot nañ say bokk ndax dañ doon bañ mu daw wala muy euh, defaat yu mel ne yam doon def di daanu wala yu mel noonu waaye dañ ko seere ci suñ biir ñun ba akuk dal ba xamu ci dara di ko toppatoo nag teg ko ci roq boo xam ne bi euh, danañ ko toppatoo ci léppam ba dara du manqué ngir mën a jot ci yu mel noonu mm-hmm. waaye alhamdulilahi rabbil alamin daal démb ak tey jàpp nañ fi nag mbooloo bu bari kii euh, ci chiffre xam naa da ca bari nag ñoo am na ci ñoo xam ne dañ leen a téye ba kii bàyyi leen ñu demee ñi nga xam ne ay dongoy daara lañ jàpp nañ ci lu fukk ak juróom ñi nga xam ne ay coxeur lañ ak i nangam jàpp nañ ci lu toll ci ñeen fukk euh, ñi nga xam ne ne ay ay ay ay ay délinquant lañ moom yoo xam ne dañ doon def lu jubadi moom jox nañ leen police bu ngeen demee police dañ leen jox nombre bi nga xam ne ñëw nañ fi xam naa daal duy nañ fi oto ba mu fees yóbbu nañ ko waaye nag ginnaaw mi ngi ci loxoy yoon moom na yoon waxal boppam ne na nga xam ne noonu la toll waaw xam nga nag dëkk euh, mbir day jox day dox ci yoon ginnaaw mbirum nit la dëgg la nee na euh, dox nañ ba xam moom ndaw si waxu waxuñu woon ne kii mooy borom këram waaye dox nañ ba xam ne kii mooy borom këram te dafa demoon te ba mu demee itam gis nañ ci presse bi ñii di wax naan dañ ko kidnappé ñii naan dañ koo nangam façon waxi ni bari na léegi su fekkente ne def nañ ba gis ay ki ay ay bokkam dañ koy jëbbal yoon yoon jébbal ko ay bokkam ndax mbir ndax ndax mbir mi demoon na ci yoon bu noppi. ci tënk sëñ laat mën nañ jàpp ni yéen daayira bi muy dugg ci seeni loxo. Mhm. ci anam rafet la ci duggee ci anam yu rafet la ci moom mu ñu duggee ci suñuy loxo ci anam yi rafet la ci duggee bu ñu génn ci suñuy loxo itam ci anam rafet la ñu génne ci suñu loxo incha allahu taala. wax naam alhamdulilah. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala wa ala wa sahbihi wa sallam léegi dégg nañ kàddu yëpp lu seex bi wax wax dëgg yàlla rafet na yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla barke ñun ñoo nekk ndongo Umar Sall man maay chauffeur man chauffeur laa ndongom laa xaritam laa yàgg nañ ba ma woowee woo ma ne ma kat dégg nañ ne Awa Ndiaye feeñ na Touba def leen tout ngeen dem jëli ko ñu ànd ak caméraman kii mooy caméraman Oustaz Oumar Sall kii rakkam la ñu ànd ak moom ñëw fi ko ñu wooyee ñu woo seex bi mu teccal ñu fii ñu ñëw si jumaa ji mu ñëw ñu xaar ñu ne nañu xaar benn fereeram ñëw ñu xaal fereen bi ñëw ñu waxtaan alhamdulilah rafetal nañ gis nañ mbir bi gis nañ ko wante gis nañ ko wax dëgg yàlla alhamdulilah sant nañ yàlla bu baax yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla barkeel leen yàlla barkeel liggéey yombal Samba Niang seen bokk Samba Niang mooy wax fekk ngeen ko ci anam yoo xam alhamdulilah fekk nañ ko anam bu rafet macha allah alhamdulilah wax dëgg yàlla loolu a la wax dëgg yàlla nañ gis moom gis ñu moom benn gaañu gaañu gis ñu moom dara wax dëgg yàlla ñooy sant yàlla quoi alhamdulilah jërëjëf yàlla yàlla la nañ ci ak soxna mu mel ne am nga lu ngeen bokk mën lu ngeen kooku sama rakk la euh, papam ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay xam hmm. ah. nga la tudd waaw nag euh, fële loolu sëy Kër Massar ah. Omar Sall Oustaz Omar Sall maanaam biñ koy jàppee fii Touba mu ñëw moom daal gis naa ko wax naa ak moom mais nag moom nangu toog reconnaître kenn moom. dafa mel ne yow euh, waaw dañ ma woo buñ ma wooyee tamit euh, euh, buñ ma wooyee ne ma Mouhamed yow la Mouhamed Ndiaye may na waaw ñu ne ma da xam rakk bu réer may waaw nu mu tudd ñu ma ne Awa Ndiaye ñu ne moom waxul ne Awa Ndiaye la tudd de. ma ne ko ah ñu ne ma waaw ma ne ko est ce am photo ñu ne ma waaw léegi mu photo photo ko envoyé ma ko ndax xam nga àdduna moom léegi dafa xaw a doy waar mu ko envoyé ma ko bu ma ko envoyé tamit xam naa ne moom la xam naa ne moom la waaw léegi nag moo tax ma déparé Dakar jëm si fii moo tax ma déparé Dakar jëm si fii quoi